jim bismillahi rahmani rahim wa o fog amateur o fog sereer i oxu na ñoowa cosaan fo aada cereer meeke kam Ndindyfal TV fo Mbour Tefesse TV waaw ñu ñëw nag fi nga xam ne moom mooy kër Birame Diouf le grand saltigui voilà le grand salmakoor de Djilas saltigui siin yi yëpp ak ñoo xam ne sax dëkkuñu siin ñëpp ñëw këram fas yéene dundal li nga xam ne moom mooy cosaan ak aada seereer wala cosaan ak aada sénégalaise waaw vraiment ñoom ñëpp ñu def acte bu noble acte bu rafet ñoom ñëpp ñu ñëw fi nga xam ne moom mooy kër Birame Diouf Birame Diouf di leen defal teranga reyal leen nag xam nga rek séeréer dafa am teranga Birame reyal leen nag boisson bi manqué wul dara manqué wul lépp lu waaye soxla depuis ci suba si ba léegi ñu ngi koy am fii ci kër Birame dara manqué wul vraiment ñu koy rafetlu trop. waaw di bëggee ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Ndindy Fall TV ak Mbour Tefesse TV di leen di jaajëfal bu baax di leen wax ne képp ko rek mën nga dem abonné laal cloche de notification mais avant tout d'abord euh, dañuy nuyu ki nga xam ne moom mooy le grand Salmaco le grand saltiki Biram Diouf Biram Jilaas maa ngi leen di fay di leen sant di leen ziar aha kontaan ci seen taxawaay bi tey ci bés bi nu ngeen encadré bés bi di ci tax di ci kontaan bu baax aha Biram ñu gis ne yow tey le fait que saltigi siiri yëpp jox la cër gi nga xam ne moom mooy seen première rencontre ñu ñëw defoo ki sa kër peut-être am na lu tax loolu mun nga ci mun nga ñu ci expliquer tuuti. looloo dégg gis nga cer yaa koy may sa bopp bi pare ñu door la kaa jox ah, li tax saltiki Sénégal see saltiki séeréer yëpp yu nekk Sénégal dajaloo ne ma may président des saltiki séeréer du Sénégal daraa tax dara tax ñu ñu ñu jox ma ko. mooy li ma leen wax sànq rek dama leen ne ñii sumay rakk lañ ñii sumay jarbaat lañ damaa bëgg tànk yi ma topp ngeen topp ko ci fula ak fayda su ma waxu dem mooy su ma waxu tey ma leen sëriñ di ñaan ak bañ liggéey bokkut mooy li ma wax encore ma ne sëriñ bés boo demee kër sëriñ yërëm ko mënu laa ñaanal loolu laa laay ñaax xale ñu góorgóorlu defar seen bopp defar seen toogaay man ñaan amatuma lu ma ci prouvé na ñëpp xam nañ ko waaw waaye tey nag laa gën a kontaan ci ñaan saltiki tous les saltiki séeréer du Sénégal ñëw dajaloo yaa ñëw doy def nañ la président des saltiki séeréer du Sénégal loolu dafa rey man dafa diis dama kontaante bi xaw ma lu may wax mais ñu gis ne xale yi surtout ñi nga xam ne ñu ngi soog a doon ay saltige wala ñu ngi a doon ñu ngi fi euh, nekk fi euh, di def ay yëfu cosaan quoi yëfu jaloore daal waaw te yow képp ko xamoon biram rek loolu rek la doon def mais gis nañ nga leen di calmer tey lu waral loolu. non dama ko doon def waaye à ma manière et à façon man bu ma ko doon def fu góor yi tasee laa koy def ci xoy waaye xam nga fii du xoy fii jigéen yaa ngi fi xele yu ndaw yaa ngi fi. mus nga fee mun nga génn jaasi mu dal ci jigéen wala mu dal ci xale loo gis rek ak fam xej waaw ah, waaye nag euh, bés bee toll noonu loolu mënut a ñàkk. mais Birame ñu gis ne ko vraiment bés bi màgg na waa Jilaas que benn xale desul benn mag desul ñëpp a ngi Jilaas vraiment ñi ci ñi nga xam ne mooy ñooy sa mag Jilaas sax ñëw nañ teewal la sa bes bi loolu loo ci mën a wax. Mbay sëriñ du campagne Serigne waroo gàddu sa saak dem beneen dëkk. boo ko defee rek am na lu des sa liggéey man Djilass ñoo ma njëkk a gëm avant tout Djilass ñëpp a ma bëgg avant tout loo tax ma ne la cër yaa koy may sa bopp ñu delloo la ko boo mayul sa boppu cër kenn du la ko delloo damaa kontaan ci waa Djilass bi xaw ma nu ma def euh, jilaas euh, da ngay gis sëriñ yu bëri tey da ngay gis dëkk bi sax ni mu toll yëpp da ngay gis client boo xam ne dafa wàcc ci kër sëriñ dafay dégg suma tur rek biram ji laa rek day bàyyi sëriñ bi ñëw ci man te ndax may metti ndax man utatuma client billaay utatuma client li ma yor attanuma ko loolu loolu nag man maa ko liggéey ci fula ak fayda gis nga gaynde xam-xam dañ koy tarbi yow dama tarbi suma yaay ci xam-xamam tarbi suma baay ci xam-xamam tarbi suma nijaay ci xam-xamam doon si baay doon si ndey doon waaw loolu laa dajale di ko liggéeyee loolu moo tax ma ne la polyvalent la mm-hmm. Mm-hmm. sonaluma kenn it man damay xam nga lan laa def alal mm-hmm. indépendant total gis nga ñun ñoo doylu wut waaye ku nekk la yàlla may ku juddu juddoo woo dara nen nga juddoo boo fekkee boo solee yére loolu yàlla moo la ko wërsëgal nga sol montre bu rafet yor portable bu rafet yow judduwaale woo ko kon ku ne yàlla mayuma rek da ngaa nañ lu wut nañ góorgóorlu ñëpp ay am yàlla magasin wërsëg ku ne la ko jox boo lambee rek nga daj ko boo lambut nag doo ko daj. mais tey biram yaakaar naa duñ nekk fii di lam-lamee biram lii lay faj wala lii euh, ci lii lay liggéey par ci par ça tey Euh, biram mun nañu gars yi mun nañoo gën a xam yow ci li ngay gën a yëngatu parce que vraiment mun na man man boog man mi nga xam ne jëlaat laa dëkk saa yu ñëw ñëwee fii pour ma ñëw fii fekk ma fi ay lu ëpp ay dix oto taxaw ci buntu kër gi bëriwut mais biram yow ci lan ngay gën a yëngatoo pour ñi nga xam ne vraiment dañ leen soxla dañ leen pour ñu mën a dox si seen soxla seen kanam. xam nga dañuy naan euh, sëriñ mënta lë mënut lépp gis nga gis nga xol bu rafet. Mhm. xol bu rafet kese ñaan la. client yi di ñëw. nga dalal leen. Mm-hmm. waaye client du dugg oto. di daw di daw jóge fu sori ba ñëw ci yow mm-hmm. nga fitnaal ko bala nga koy wax loo xam ne amut mm-hmm. dañ laa liggéey ak dañ laa dédaleeg jine yee la jàpp même loolu bu amee nga gisaane ba xam ko wàcce ko ba dal boo ko dalee wañ nga genn wàllu feebar gi. yaa ngi dégg gis nga problème yu bari tey ni ma ko waxoon ci véle sëriñ yee koy def da ngay am problème bu toll nii ñoo la koy yokk fii day dem dañ lay dañ lay fen ba fen boobu day exister si sa xol nga foog mu ne yàlla dem ba def ko réalité ci yow fekk dara amu ci. Uh-huh. Uh-huh. li may faj nag uh-huh. man damaa ne polyvalent la ma la wax fii laa ma ne. gis nga xam-xam réytu xol bu rafet mooy ñaan. gis nga nit xam na lépp ci àdduna. garab bu ne xam na ko jat bu ne xam na ko. te munoo xam nga lan moo jafe ci ñaan wax yàlla def. gémmiñ bu barke. mooy wax yàlla def loolu xol bu rafet nag moo koy may nit mun nga yor xam-xamu àdduna yëpp munoo wax ba yàlla def mm-hmm. loo ñaan du am xol bu rafet mooy ñaan ak dëggu nekk ci dëgg mm-hmm. nekk ci sa liggéey mm-hmm. mais Birame tey boo amoon loo yóbbante jeunesse bi wala Sénégal instant yi surtout fi réew mi toll nii lan nga mën a wax fi réew mu toll ni xam nga tey li may wax ci saltige yi mhm. ak sëriñ si mhm. dañoo xoqatal ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ca loolu du yoon mhm. ko de accident dina am kilifa dina dee waaye xanaa ñoom gisuñ liir yuy juddu principal ay kilifa liir yuy juddu population Sénégal day yokku am day wàññu day yokku lu tax sëriñ si boo nee kilifa bee dina dee kilifa chaque jour kilifa dee chaque jour kilifa juddu nañ bàyyi xoxotal bi ak caaxaan yi ñuy wax loolu mun a nekk sëriñ loolu moom a gën a métti ci sëriñ yi duñ gis jàmm musiba la ñuy gis fu kilifa dee kilifa juddoon na principal wala Abbas Ndaw wala CTO kon lan mooy kilifa de xanaa du gisu ñooñu di juddu ñun ñooy ñaanal suñ bopp musiba ñooy indi suñ bopp fitna mm-hmm. may lancé appel population Sénégal yi yëpp nan dal ci sëriñ si muy man muy keneen buñ kenn yóbbu seen fit dara nekku fi lu dul yàlla moo njëkk mooy mujj. Mhm. tey euh, gars yi parce que am na ñoo xam ne ñu ngi laajte sa numéro pour ñëw fii wala ñu ngi laajte sa numéro pour jokkalante ak yow tey mun mun nga leen rappeler euh, si possible sa numéro en direct en ci ligne. waaw loolu dama cee kontaan ndax dama cee defoon erreur ci Diofior TV mu am ñuy woote di jot benn femme femme boobu dem na ba nekk sëriñ ci suma numéro boobu mooy suma numéro bi nekk 77 879 vingt 27 waaye foofu dañ kaa binde cinq lañ ko mu jee foofu boo wootee vingt cinq foofu benn femme ngay jot dem na ba def boppam sëriñ ndax numéro bi beneen numéro bi di 138 82 14 man nag neexuma jot mun nga répéter ñaari numéro yëpp waaw 77. 879. 08. 27. 27. 138. 82 14. boobu tamit 77 la. waaw 77 la ñaam ñëpp. ñaar yëpp 77 la. waaw waaye nag euh, numéro bi may jégalu bu baax. ñi may oo jot ma. bariwul ñi may oo duñ ma jot ñoo ëpp. ma ciy jégalu bu baax. gis nga ku bugg a ñëw ci man bu dee côté dakaar nga jóge jëlal oto yi dem Fatick nga wàccu croisement moon jël oto ñëw Djilass 24 heures sur 24 maa ngi fi mercredi rek laa du liggéey bu dee ñuy jógee côté Kaolack jëlal oto. Mbuur yi wala yi nga wàccu croisement moon wàcce Djilass foo wàccee Djilass boo laajtee Biram yaa Juuf rek di nga ma gis ndax ñuy woote Biram léegi dafa bëri. boo waccee Ndiosone balaa ma yegg si mun nga mun nañ la yóbbu ci yeneen biram aha loolu la. léegi dernier mot si foofu ma laaj la benn question. tey gars yi ñëw fii ñëpp teew teew ci sa kër biram rëy nag inaak maak ingi de layam ngoox biram rëy ñi gars yi naan boison ñi lekk yàpp bi ba doyal ceeb yaa ngi nii macha allah biram émotion bu ak mbégte boobu loo ci mun a wax aussi looy ñaanal aussi ñi fi teew. Euh, gis nga loo gis dañ koy doon te maye wala dimbale nit bu la am da ngaa narutoon am man Doki Diouf bu ñongoloor mooy suma baay ngas ka maye juuf bi yaande ko di di boo fi yaa tig mooy suma baay ku nekk dégg na seen jaloori man maye deret la ci man xanaa maye bi lañuy gis bés bu ñuy inauguré jumaa fii lu ñu jege fii dina ñëw ba ci man nag laa yëkkati may xanaa ren rek bii mooy onzième nag bi ma maye waaw onze man damaa yor nag yorantuwuma nag damaa liggéey dafa yor nag yorantuwul nag gisoo nag ci biir kër gi nag ma ne gisoo nag yi ci biir kër gi demoo ci àll dama damaa liggéey fowuma looy baaxoo waaw biram xara faklitin man suma ma bakku laay bakkoo déggoo ndend bi nuñ koy nu mu koy tëgg dégg nga ko kay balin kumba balin mhm. boo dem am ko am fa ku la nopp te balin kumba balin balin kumba balin dëkk boo dem am fa ku la nopp waaw balin kumba balin ku ñaaw rus looy ñaanal njëkk ñaanal yéen xam nga dañ leen di fàtte mhm. TV TV waaye lii ngeen di def mhm. xam nga man dama noonu man journaliste bu ma seetee seeteeti léegi yaa may fay ndax woowuma kenn waaye xam naa fi ngeen ñu di yoobu xam nga maa ngi corrigé numéro yi ci yéen yal na leen yàlla jàppale ba ngeen am télé yoo xam ne billaahi te yàlla mën na ko te dina ko def mbay mi fii la dëkk jilaas xam na ma du ma xaari toog ku ñàkk wërsëg du ma xaari toog ku gàtt fan ku ma àndal ku ma àndal nekk sa am nga ci loo jàpp kenn dimbalewu la leer te kenn du leen dimbale leer yal na leen yàlla jàppale li may wax xol laa koy waxe te ci bésu tey bi moo ko waral bésu tey bi saltiki yi desaluñu ma dara saltiki yi dañ maa bëgg fonk mate te yàlla tax am fuñ ma teg nit ñi buñ gàttee xel sax mun nañ dem beneen ragal la waaye la te man it xam naa respect la kenn ragaluma saxuma laaf déw ci asamaan nit kese laa te si suuf si rek laay mujj mhm, yal na leen yàlla fay yal leen yàlla jàppale. kon ñu ngi lay jaajëfal euh, di leen di wax ne nag mbokku internet mbokku Sénégal mbokku amateur mbokku kullus kuy séeréer wala képp kuy dund cosaan ñu ngi leen ñaan nga abonné su fekkee abonné ko ci te Tefes TV wala ci Ndindy Fall TV eh, ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox ba ëllëg incha